tey euh, jóge nañu fi nga xamante ni mooy marché Dior mbartalu fii si Liberté deux voies Liberté 6 si jotali bi fi nga xamante ni la ñuy euh, jaayee lii di ticket marché Sénégal ak Égypte ñëw nañ nag nday fekk askan bi génn nañu di wut li nga xamante ni mooy ticket pour waajal euh, match bi nga xamante ni dafa war dox ci diggante Sénégal ak Égypte demee incha allahu rabbi fees stade maître Abdoulaye Wade bu jëm ñaajo maa ngi taxaw a gars yi nag dama leen di laaj lan moo waral taxawaay bi di sànq ba léegi nijaay ziar a baax a te fekk nañ la deux voies liberté si si jotali bi xaw ma jotali li ñu koy wooye xaw ma koy woye fu ñuy jaayee tikki match Sénégal ak kii di Égypte dafa mel ni boobu léegi yaa ngi taxaw ana sa ticket. non amaguma ticket instant yii nii. lan moo waral loolu. ah xam kenn comprendul ñu jël ticket yi dem joxoot xaw ma jotali xaw ma nu mu demee noonu sénégalais yi toog ñun ñu bëgg a dem support suñu équipe mënuñoo gis ticket te ne dañoo bëgg a gagné. bu njëkk jotali boo ko daan dégg mooy kuy jotali ay nit. kon yaakaar naa bu ñu demee ba tudd jottali rek kon ñëpp war nañu mën jot seen wàll si foo mi mais ñii jottaluñu kenn parce que ñii seen bopp lañ fi nekkal parce que ñun ñu ngi fi ñëw depuis 6 heures du matin ba léegi mënuñoo am ticket sénégalais yi fédération yi war nañ xoolaat seen bopp bu baax. mais ticket daa jeex wala. dañoo gisul ticket ba muy jeex. mais gars yi ñu ngi doon jaay ticket temps yëpp. mais dañ koo gisul ba muy jeex déggoo li ma la wax lan mooy nday ñu yóbbu euh, ticket yi ñu yóbbu ko ci stade yi yóbbu ko amitié Demba Diop Iba Mar yóbbu ko alsaan Djigo yóbbu ko stade Lat Dior ku ku ku ku yeewu fa nga dëkk nga yeewu dem si sa stade municipal jënd fa ticket. loolu nga bëggoon ko yow. mais loolu moo doon yoon. mais est loolu bu ñu ko defoon tey farat bëri moo tax ñu taamu yi nga xamante ni ñooy jotali pour mën euh, jaay bay comme ni mu. bëri ndax tey jii nii ku bu est fekkee stade bi ku yeewu xam ne stade bii mooy jaay bu dee sama classe wala keneen ku bëgg a jënd di nga xam ne stade ñuy jaay ñoo valable fa ngay jubali. suba la ñuy fubal lan ngay wax ndaw Aliou si say si boobu jongante non ndaw Alioune Cissé yi moom ñun suñ xel dal na ci quoi. dal na si ñun supporters dal na ci bu baax ci côté bépp l'essentiel ñun li ñuy wax moom mooy gaynde yi pare nañ mais supporters yi si moom ñoo commencé am doute ndax ñun ñoo war a yëngal ci kaw ñu ñoo war a feesal stade bi. yéen a war supporter. ñoo buñ supporter amu leen ticket. amuñu ticket. billaay am na ñoom fii lañ fanaan. gis naa loolu fii gis naa loolu. billaay am na ñoom fii lañ fanaan ba léegi mënuñoo am ticket. mu ticket yi jar yi doon jar dix mille léegi gars yi di vingt cinq mille. vingt moo ñu koy jënd ko jaayaat. waaw ñi doon jër yi doon jar. trois mille gars yi di ko jaayee quinze mille douze mille treize mille. du yoon de. waaw mais loolu si fédération la nag ñoo nelaw. non dana baax. waaw non dañu am ndam incha allah. day baax affaire gars yi. si jàmm sant yàlla ana ticket yi. ah mu ne la ñuy xool. ba nii nii dara sotee ba nii nii. la ma waroon ñëw leen depuis barki démb wut ticket. balaa dara di xew. avant masa ala bi ba léegi ñu ngi ñëw di wut léegi deux jours yu passé gars yi daañu jaay ticket normal. man ay prix. mais boo bëri trop. loolu du loolu xëy yorul sax. ci 10 ñu koy jaayee 25000. su ma dee jënd jënd nga ñaari ginaar toog sama kër si rente la. naa ko def bokk ak sa famille. ko xalaatuma ko sax. looy wax ndaw kan naari moom dinañ leen ñaanal ñaan yu baax ñun moo ñu ci kaw moom nañ am jëmm fubal rek. ñoom daal li ñu yëngal li ma lay mën mooy Aliou Cissé bu ko mënee dégg Bouna Sarr na toog ban bàyyi yu sabali fubal. Bouna Sarr de waaw na toog. mënul sa Pape Gueye na ñëw. bu yàq bu yàq bu yàq suñu classement. loolu sax d'accord si loolu. sëñ bi ma la may tëggee laa wax mënoo jënd ticket 3000 nga ñëw ba fii di ko jaayee 10 000. loolu pour lan. loolu moom soxor la. égyptiens yi ñoom seen ticket dañ koy jaay ñëpp dugg yuuxu lion yi. jël pourquoi pas ñun ñu jaay ñu ticket ñu ñëw dugg. jël kuy jaay ticket 10 000 3 000 jël ma kaay ma loxo kaay ma ñëw topp la xaaral ma ñëw topp la ñëwal ñëwal xaaral ma ñëw topp la naka ma ah tike ngay wër wala waaw tike laay jënd am nga wala amago non amaguma maa ngi ni di xaar loolu ni moo tax amago boobu léegi ah parce que as ki pare nee ñi ñëwaguñ genre après am na ñuy ñëw fi tamit di jaay di xam ne ay 10 000 ak tike 20 000 20 xaw ma yow daal d'accord aussi anam buñ koy jaayee bi non non sa laspère wala sa laser eh, mi ngi suñu kër sa <laughs> ah. a am di nga dem stade ah inshallah su fekkee naa am billet moom dinaa dem stade di nga am billet ah inshallah inshallah waaw ça va maa ngi si jàmm alhamdulilah maa bu baax danga ñëw fekk ngay ñaxtu. waaw dinaa ñaxtu parce que nag vraiment euh, condition yi ñu gis nii dafa xew yi waa Jotali. waaw waa Jotali ñu ngi leen di nuyu d'abord euh, avant tout euh, ñu ngi nii fi ñuy jaayee billet yi bëgg ci billet yi. ñoom ñuy jaayee ticket. waaw ñooñu waa Jotali ñoom seen bopp. bon dañu leen di wax ne vraiment condition yi ñuy dund nii di dafa xew yi. vingt et siècle waroon nañ dépassé vraiment di jaayee billet si condition yu métti yi nii. mënoon nañ ko jaayee feneen def ko ci point yu bëri yoo xamante ne peut-être nit ñi dinañ am facilité pour mun a am ci billet yi te duñu nekk fii di rang ça fait depuis vendredi ñu ngi fi di rang te mënuñoo am ci billet yi vraiment condition yi métti na. suñu mënoon tey tey li sànq ba la yéen a ngi fi mais dafa mel ni gisagu leen ñi nga xamante ni ñoo leen war jaay ci kii. waaw bon condition yi la ñuy dund chaque jour parce que du ñu teel a ñëw balaa ñuy ñëw 19h wala 18h lañ fiy ñëw alors que nit ñu ngi fi depuis ce matin ay 8h. est-ce que tamit loolu tamit bokk na si respect ay ñëw bàyyi seen liggéey ñëw fii bëgg a am ticket pour dem soutenir seen gaynde yi yow ngay toog ba 19 heures pour ñëw pour mën leen jaay ticket est loolu bokk na ci li nga euh, war a nekk ponctuel quoi su dee da tijji ñu jox la liggéey nga war ko gérer da war a ñëw heure wàcci heure nit ñi ay nit lañ ay doomu aadama lañ comme ñëpp dañu yor bakkan vraiment taxaw ci naaj bi pendant toute la journée yow nga toog sa kër bu heure bu la neex nga a ñëw na loo xamante ne vraiment doon na lu ñu rafetlu métti lu nañ ko ñun ñëpp vraiment Pape siyaar na. siyaar naa la yaa ngi jàmm. sant bu baax. maa ngi maa ngi sant bu baax. daa mel ni lu wokk sa morom moo la xuri. moo xuri ñëpp problème bi mooy ministre bi ñim jox ticket yi ñooñu mënuñu jaay ticket xamuñu sax jaay ticket ticket yi na koy jox waa fédération ñu jël ticket yi stade bu nekk ñu yóbbu fa. bu fa fekkoon stade yi stade yi nekk Dakar yëpp stade bu nekk ticket nga fa rang du am ticket bi mu daan nekk Léopold di nekk Demba Diop da nga daan da nga daan xëy heure bu la neex nga dikk du taxaw ci gise bi waaw ñëw jënd li nga bëgg a jënd génn dem sa yoon. kon daal jàpp nga ni yow système bi moo baaxul. système bi baaxul ba pare te ni ñuy jaayee baaxul yow imagine yow nga jógee sa kër sa waa kër yëpp jox la seen xaalis yóbbante la nga dikk ba ak si ñu ne la ñaar laay jaay léegi yow bu ma dikkee jox la jox kii keneen ki su ko joxul day wax la la jëndal mais dañ ko war di nit bu ba da nga da nga jaay soxla mais ñi dañuy dañuy 500 personnes

cest dire ñun équipe bi ñu yor qualité bi mu am Afrique kenn amu fi ñun naare dañoo ragal ñeme wuñ ñu ndegam seen biir dëkk fi lañ leen fekk dominer leen ñoom euh, war a def mooy mu wóolu équipe wóolu équipe pare bàyyi leen ñu bàyyi leen booy bu leen bàyyi ñu football rek ñu gagné naare waaw parce que yow yow nga bëggee gagné man ma bëggoo gagné ba tax ma ñëw rang fii jonaa ju tàng noonu la joueur yi bëggee gagné man loolu leer na ma man kon leer na ñëpp yaakaar ñu dem xooli gars yi ba léegi ñoom ñoo ngi wéyal di toog euh, di waaj wala di xool nu ñu mën def ba am euh, lii di ticket marché bi pour dem soutenir seen gaynde yi. jàmbaar baa yaa ngi si jàmm ñu ngi sant bu baax. na ko waari sant baax a baax. daa mel ni yow tamit lu wokk gars leen yow moo la kàjj. waaw yaakaar naa looloo ñu dal looloo daal askan bopp mhm. waaw. lan nga jàpp ni moo waral lii nii système bi bu ñu koy liggéeyee moo baaxul wala. ah pour man loolu si njët bi la rek fédération bi moo deful liggéeyam. moo nelaw rek parce que lii am na noo koy organiser pour man. amaana du demee nii quoi parce que Égypte tax amaana ñoom seen dëkk sax sonnewuñ si nii. sonnewuñ nii de sonnewuñ nii yaakaar naa stade ay nit dafay dem pour supporter gaynde. parce que ñun ñëpp ay Sénégalais dañu waxante dëgg ñun ñëpp ay Sénégalais ñun ñëpp xam nga Sénégal moo ñor suñu équipe moo ñor rien que dem supporter dem doole suñu douzième gaynde yi mais lii de boobu ba léegi depuis huit ba léegi ticket sax mënoo ko am. tey même boo demul stade euh, yaakaar naa di nga seetaan marché bi tey ana ban classement ngay proposé Aliou Cissé. non moom lu mu war a def moom xam na ko bu baax. xam na ko parce que lu mu jëlee si match bi rek daanaka tey booy xool ñun lenn nag moo ñu war mooy qualifier dem mondial. parce que tey loolu la ñuy séntu loolu la ñuy séntu si moom wax fa dëgg yàlla di ko wax ñu koy encouragé bu baax parce que daanaka match bi 1-0 la. 1-0 la 2-0 dañ koy jëlee. non match bi du yomb moom. man wekk ko day yomb 1-0 non wekk dina yomb du yomb. Mm-hmm. Ah, du dina yomb du yomb mais nañ gars yi moom li ma ñaax mooy nañ def seen fulla ak rek xam nga. xam ne ne gars yi ñu ngi seen ginnaaw nday moom mi ngi sol mbayam commencé supporté te dara xewagul kilifa gi nuyu naa la ziar maa lay ziar baax yaa ngi si jàmm Badou ñu ngi sant yàlla bu baax baax alhamdulilah maa ngi sant bu baax baax nga sa étoile de waaw gis nga de étoile yi ñu ko de suñu étoile la de ñoo ko moom ñoo ko moom waaw gis nga loolu bi bu bees bi la waaw bu bees tag bi la waaw tey ñu ngi la fekk côté jottali euh, fi nga xamante ni la ñuy lii di ticket stade yi tey ngeen taxaw ñu gis askan bi tamit am benn euh, doxum ñaxtu wala benn benn cri de bu ñuy lancé boobu ak léegi euh, muy béy li ñu ko waroon jaayee ñoom gisuñu seen bopp te yow looy wax si loolu. grand li ma wax ci yow yow sax gisal nga ko sa bopp xam nga lii du yoon bu nekkee ci mas boo xam ne waaj ñëw muy mas contre Égypte mu doon mas bu am solo mas boo xam dañ ko war a gagné mas boo xam ñëpp war a jàpp ci affaire yi jënd ticket doon problème loolu du yoon ticket yi 3000 gis boo yi ko jënd di ko jaay 10 000 ticket yi 10 000 da gis boo yi di ko jaay 20 ci affaire ñoo war a jël seen responsabilité ticket yi ñu dafa ko point de vente fii ba Tëngéej fii ba Pikine fu ne ñu dafa point de vente a ñëw pour am accès ba tënkee nga vacances la jógee Paris la né vacances la jógee uniquement ñew match bi fekk ma fi ma am plaisir pour ñew sétane parce que équipe bi équipe bu ñëpp la. donc nag bo ñëwee wara jënd ay 15 tickets 10 tickets pour may say booyu koñ pour say booyu galé pour ñu dem booyee mënuñu am ticket mais ak yoy bu ñu dalé baxul donc gars yi duñu yaakaar ci yow. waaw dañu yaakaar ci ma lo tax suba depuis ce matin ma ngi fi depuis ce matin ma ngi fi réeg pour jënd ay tickets man 10 la jënd wala 15 may ko sama booy waa gaale ma ànd ak ñoom def délégation ñëw parce que c'est le Sénégal qui nous intéresse mais boo ñëwee fii depuis samedi nga ñëw xamu joxuñu la horaire waxuñu la ban heure lay tijji xamoo ni buñ tijjee ndax di nga am tiggawul du am tiggee yi jël nga gis gars yoo xam ne dañuy yor billet di ko jaay di ko mais doom day am ñu ko mën jënd mais am ñoo xam c'est n'importe quoi am na solo c'est l'espoir qui gagne ana tey ban message ngay lancé xamante ni ñooy suñu gan di pharaon yi pour que ñu football ko ci fair mu jeex ci fair waaye ñu ngi ñaan yàlla sama Sénégal yàlla jox ndam lu rëy euh, demee incha allah rabbi ci kaw Égypte waaw mais li may wax lancer gars yi gars yi affaire combat na affaire bi mooy gars yëngal ci suuf ñu yëngal ci kaw amul dara lu ñuy may naari gis nañ bañ demee Égypte gis nañ ñu fa demee woon donc amul sereel ak amul ay non garaawul affaire demoon lépp lu ñu war def loo xam ne bi yàlla yàlla def maane gagné yaa ngi dégg en plus stade bu bees bi la bi mooy suñu match officiel bu ñu football donc yoon la yàlla may ñu fël te incha allah rabi ci kàttanu yàlla ñuy gagné. nga waaye c'est pas une question de d'accord ou pas question mooy ñoom lu ñu doon defee loolu la ñuy rek xam nga li nga li nga li la lañ lay rek loolu rek la duñ ci yokk duñ ci wàññi. waaw parce que ñoom ñoo loolu nañ mel naari waaw loolu am kontaan ñoom nday gis nga euh, ginnaaw bu ñu jógee fi nga xamante ni mooy marché Dior euh, gis nañu askan bi ñoom aussi li ñuy waajalee lii di jongante Sénégal ak ñii di Égypte pharaon yi gis ngeen kàddu yi nga xamante ni jot nañ ko fi yëkkati waaye noppi wuñu comme li ñuy wax wàccee Dakar rek dañuy topp toujours li nga xamante ni di bëggal li nga xamante ni moom bi di xaar mooy deux voies Liberté si jotali bi nga xamante ni fii la ñuy jaayee ticket stade euh, ticket match euh, Égypte ak ñii di Sénégal gis ngeen askan bi cri de bu ñu am maanaam euh, cri de cœur bi lenn kese la maanaam ñoom dañoo bëgg dem stade dañoo bëgg dem soutenir seen frères yi dañoo bëgg dem soutenir gaynde équipe bi nga xamante ni képp kuy sénégalais si nga bokk tey ñu ñëw fii bëgg a jënd ticket boobu ak léegi mënuñu am ticket ñi nga xamante ni ñooy joxe ticket yi 19 heures ba 19 heures la ñuy tijji te ñoom depuis 6 heures du matin ba léegi fi mu nekk acte bu ñaaw acte bi nga xamante kenn salué woo ko geste bi nga xamante ni doomu ma ko bañ a tudd si li nga xamante mooy reportage bi muy Mama doomu papam xaritu surtout papam maa ngi koy souhaité un bon anniversaire moom Mama Touré di la jaajëfal yow Ndeye Fatou jigéen bu mën góor sama caméraman bi xaddi woo bàyyi woo mbokk yi ba ma neen si beneen numéro ñu waxtaanee ko jaay ngeen jëf